salaamaaleykum mbokk yi di am di jataay ak yéen ni ñu koy defee ci wàll wi euh, di ànd ak yéen ci li nga xamee ni dafa di seen coobare waaw ci li nga xamee ni dafa di seen coobare dama koy fàttali bis bu nekk ndam li dafa seetlu ni Paris sportif bi dafa leen manqué ba ngeen ko den laaj fa mu nekkoon mu indil leen ko ci seen biir kër indil leen ko ba ubbiloo leen compte bu nga xam ni su ngeen gañee fi ngeen tëdd la leen seen gain di fekk kon ñu jëm ak yéen ci ñetteelu bi bisu championnat du Sénégal mais waxtaan waxtaanoon ci keroog bi ñuy door mënugu leen xam équipe yi tant que defuñu ñetti match pour nga ni équipe bi sama équipe wala équipe bu waa ji nii la mel te xooluloo ko ñetti yoon mënul am am na sax spécialiste yu ni ñetti yoon doyul juróomi yoon moo doy waaj soo ko xoolee mu joué juróomi yoon dara la xotul mu tey kaak mu bañ ko tey yëpp feeñ na gis nga lépp te su boobaa xam nga fi nga mën jaar sàkk e kon ñu ñëw dugg ak yéen ci programme bi te dafa am lu feeñaat xam nga Sénégalais yi dañu irrégulier pour nga gis équipe bu Sénégal buy def nii rek bu yéeg non léegi daf dafa mel ko bu ñu duggee ci ascenseur bi jëm jëm troisième étage dañoo ñëw ba deuxième wàccaat premier dañoo ñëw ba deuxième wàccaat premier boo bañul sax ñu dellu ba rez-de-chaussée alors que trois te kat ñoo fa yóbbu seen bopp du ascenseur bu paat parce que dañu Sénégal yi ñoo régulier wul dañu def yéeg wàcc yéeg dañuy fippu dañuy fippu Sénégal yi dañuy fippu bu ñu jógee ci résultat bu bon tey dañ naan bi ci topp day baax bu ñu jógee bu ñu tëddee ci résultat bu baax dañuy jaaxaan defe ni comme baaxoon na fale day baaxaat bi ci topp déedéet dañuy fippu. sénégalais balaa mën a xeex gaañu benn bis nag daa mus a gaañu gaañu bu nga xam ne dootoo mën continuer xeex bi comme balaa nga mën xeex gaañu bis daamu sa gaañu gaañu boo xam ne daanu rek moo ci topp ci boobu gaañu. alors loolu moo indi sénégalais yi xoolal sept matchs première division bi muy quatorze équipes sël ñaar ñoo tegle ñaari match gagné ko lii dafa néew quatorze équipes seul Linguère ak Gorée ñoo tegle ñaari match gañe leen ñeneen ñi duñ ko gañe lii moo tax Sénégal du gaaw a gañe tournoi parce que tournoi wala coupe d'Afrique pour nga mën ko gañe foo nga teg les juróomi victoire soo gañee tey bañ féexlu gañe deuxième fois bañ féexlu wutiwaat doole mais sénégalais yi bu ñu gañee tey ëllëg dañoo def tànku dañ bu ñuy football si moo tax du ñu tegle ay victoire maa ngi doon surveiller performance yi naan nañ dem bay seet kan mooy tegle juróomi victoire wala sax ñett Linguère ak Gorée ñoo defagum ñaar voilà comment daañu leen surveiller kon ñu ngi ni jëm ak yéen ci ñetteelu bis bi Casa di dalal Ngor Casa Sport nag fi mu nekk nii doxagul dafa teg la ñaari defet mais dégg naa problème bi ñu am dañoo am ay titulaire yu bañ a jouer lu tax problème interne la loolu moo indi keroog ñu perte ci gore à Ziguinchor parce que démb ñu dellu perte ca mbuur Euh, contre Mbour Petite Côte waaw léegi nag dafa naan léegi foog ñu toog waxtaan parce que y a des moments bi duñ dem entraînement dañuy toog waxtaan la ngeen waxtaan mooy gën a remplacer dem entraînement Ngor mën na profiter ci situation bii Casa Sport nekk ne serait que bañ a perdre à Ziguinchor ñaareelu match bi Douane Mbour Douane dafa doon niru Goro Boné bi waaw dafa jóge daaw deuxième division ñëw doublé gagné championnat bi gagné coupe de la ligue ñu ubbi saison bi mu tollamti gañ a coupe assemblée mu tudde loolu triplé waaw ba douane fi mu nekk nii attitude bi mu jëloon dàqoon na ragal moom la Gorée gagné mais léeg-léeg équipe bu mag nee nañu du teg la ñaari défaite day recevoir stade de Mbour on va surveiller stade xaw na jafe mais douane la fa woon ba léegi ma ngi fa waaw léeg nag di nga arrivé fakkatalu mais du tee la fa nekkoon. ba ñëpp ragal la ma nga fa ñetteelu match bi waaye di dalal Gorée bi nga xamee ni ko liggéey rek gañe ñaari match xam nga euh, li ñuy wax marché au moral maanaam euh, léeg-léeg gañe nekkul seulement ci sa tànk ci sa bopp la nekk boo teglee ñaari yoon gañe ci bi nga jëm di ñetteel bi da ngay xaw yëg ni moo gën a sonn évidemment équipe bi teg teglee ñaari match gañe buy joué si ci lay gën a neex ke équipe bi teglee ñaari défaite yow mi teg teglee ñaari match yoo gañe sooy joué si ñetteel ba day neex ki am défaite ci kooku la dul neex moo tax gore moo tax gore ci boppam fi mu nekk nii ci seen bopp daañu dëgër trop daañu jafe gagné Linguère Ndiambour ci match euh, ci ci ci ci ci match yu ñuy seenu la parce que vous avez deux matchs du jour ah Casa Sport Ngor ak ñaari tali jàmbaar te xam ngeen match du jour yi ni mu leen mën a yokk maa ngi ci Linguère Ndiambour derby la Linguère Ndiambour ndax dañu dëkk. Louga ak Ndar doxantu la 70 kilomètres doxantu la léeg-léeg bu Louga amul première division waa Louga dañoo seetaani Ndar léeg bu Ndar amul première division waa Ndar dañoo seetaani Louga ay voisins la parce que dafa nekk doxantu léeg-léeg bu ñuy dajee nag dafa nekk espèce su euh, xëccoo leadership wàll wi moo tax muy faral di jafe am na sax waa Linguère yu ni joué Ndiambour à Louga moo ëpp noflaay joué Ndiambour à saint parce que doomu Ndiambour Ndiambour yi nekk ca Ndar dañoo boo leen fekk c'est par solidarité à leur équipe qui vient mais que Linguère marche au au, au moo gore comme on ñaari match ñaari victoire njàmbur ci boppam njàmbur mi jëm ndar xam na ni match bu jafe la loolu nag mooy dolli difficulté Linguère de Saint-Louis US Ouakam Suneor de Diourbel Suneor mu ngi ci ñaari défaite Ouakam mu ngi ci ñaari match nul wakaam ci bopp moo gën dëgër waaw te nag naka jekk équipe bu jafee jouer la dur à cuire US wakaam équipe bu même soo ko mënee wakaam même soo ko mënee dans le jeu léeg-léeg bala nga koy gañe foog nga xeex moom parce que kooku état d'esprit la bu ñuy cultiver dans l'équipe su ne war dana am ci wakaam match bu jafe Mbour Petite Côte mooy recevoir Jaraaf Jaraaf bi nga xam ne moom it gañeegul première journée euh, dafa perte deuxième journée mu match nul mi ngi jëm ci Mbour Petite code bi nga xam ne en ce moment entrain baa nga fa dynamique baa nga fa du yomb pour euh, jaraaf mais am nañu expérience bu nga xamee ni jaraaf euh, mën nañu séddoo Mbour Petite Côte man su ma doon pronostiqué damay jox jaraaf foofu match nul ñaari tali jàmbaar moo di beneen match du jour bi ñaari tali dafa gagné ji l'autre jour à mëne Ngor au score Ngor égalisé. deuxième journée bi après nag ñu raté vraiment ay balu 2-0 Diamba battu à domicile par Mbour Petite Côte à Saly un peu fragile un fragile Diamba ba tax na bu ñëwee ak ñaari tali ak xadar bi ci ñaari tali ak njàddari bi ci ñaari tali bu leen ko ñaari tali jaayee daañu am match bu xaw gën a euh, jafe kon bokk mi ngi nii gris bi leen di nekk gis ngeen ko euh, xam nga paris sportif Sénégal. foog double yi di bëri double parce que du am favori amul benn match boo ni kii mooy favori pari sportifu Sénégal léeg-léeg double bi boo koy def ki nga jox am victoire ki ka fekki may ko nul ki nga nii kii mooy gagné gis nga ki nga nii kii mooy gagné léelée léeg mayal nul ki nekk en déplacement parce que c'est vrai que les victoires en déplacement gagné ci dëkku jàmbur de gën di rare pas seulement au Sénégal mais dans le monde dafay gën di raar moo tax léeg-léeg ngi di may gars yi nul comme ni ma mayee jaraaf au moins nul fële à Mbour comme ni ma mayee stade de Mbour au moins devant Douane parce que double lii moom au Sénégal c'est tellement vrai que bu championnat bi door 14 équipes mën nga génne 7 yoo xam ne ñëpp mën nañ nekk champion la ci mais loolu mooy kenn mënul kenn loolu moo di kenn mënul kenn les équipes marchent au moral bis bu nekk ak li ci mën a xew te li ci xaw du doon metteel kon ndox nii grille bi leen di nekk ajjuma ngeen di valider plus tard 15 heures ndax weekend bi door match yi samedi la ak dimanche ma leen di souhaiter bégte di ànd ak yéen nag di gërëm di félicité Lions yi waaw seen félicitation lay joteli euh, Lions yi parce que xam nga di dafa am victoire yuy animer football soo déggee ñu ni Lions yi qualifié nañu pour le dernier tour vers la coupe du monde dafay animer football bi xool yi day neex entrain bi dafay nekk nit ñi gën ci sawar di dem ci saat yi waxtaan wi di neex daa gis ku léeg ku waxtaan ba fàtte reeram parce que léeg boo kontaanee dana remplacer reer loolu la football di def ci pare ci wetu ay spectateur yéen jëpp ñu leen di ndokkeel di nekk nag tirage bi ak euh, coupe du monde bi euh, ndab li dina ci ànd ak yéen waxtaan ci ak chance ñeneen ñi euh, ni ñu baaxoo di def kon jërëjëf ba beneen ci bii wàll ndam li xam ngeen fi ngeen di jaar yëpp pour am ci li ngeen bëgg parce que le travail est tellement bien fait ci ndam li liggéey bi dafa dafa dafa set dafa rafet ba loo soxla rek am na loo janoon lu la fa mën a leeral foo bugg dugg am na loo janeel ku la fa mën a dugal moo tax ngeen mën tëdd seen biir kër su ngeen gañee seen gain fekk lañu seen biir lal jërëjëf ci wàll wi ba beneen